mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi leen di nuyu di dalal ñëpp jàmm di nuyu mboolem ñuy seetaan eh, ci Sénégo ak seen site officiel eh, Sénégo l'officiel ah, ak suñu plateforme yëpp eh, ñu ngi leen nuyu bu baax a baax a baax rawatina ñi nga xam ñoom ñooy sénégalais yi ñu seetaan ak i tamit diaspora bi ñoom ñu leen ñi bàyyi xel bu baax a baax. ñu ngi jot yóbbante yëpp tey suñu invité de la rédaction tey di Issakha Diop nekk maire Pikine Est bokk Benno Bokk Yaakaar moom mi nga xamante ni localité am ba mu dëkk ci élection yi ñu génn am na fa ndam boo am solo. Euh, monsieur le maire gannaaw bi mu nuyoo ba pare maa ngi bàyyi nga nuyu Sénégal yi ñuy seetaan ci Sénégal. jërëjëf euh, Pape Maguette maa ngi lay nuyu di nuyu waa Sénégal di nuyu internautes yi nga xam ne yëpp ñoo ñuy seetaan à travers seen euh, site bu am solo bi donc di nuyu sénégalais yëpp yi nga xamante ne ñoo nekk fii ci réew mi ak ñi nekk ci diaspora bi. Mm-hmm. Uh, gannaaw nuyoo boobu noonu ñu ngi lay gërëm bu baax a baax ci mm, déplacement bi di la mm, masawu tamit ci yoon bi mm, yoon dafa metti ndax seen président gas na réew mi yëpp xam <laughs> xam naa ñam ngeen ñam ngeen ci ci déviation yu metti yi fi ñuy fi euh, yow de bokkoo ci ñi nga xamante dañ leen a bàcc ci local yi waaw waaw ñun waaw waaw très ah. waaw ah sant yàlla donc vraiment di remercier aussi suñu population ndax marque de confiance renouvelée la ndax fal nañ yàlla dogal ñuy laajaat baatu askan bi ci contexte bu difficile ndax ñëpp xam nañ élection locale yi ci config ñu fan configuration bi mu ñëwee ren ak suffrage direct bi donc élection yu jafe woon la donc yàlla dogal population bi falaat ñu très largement ñu am le meilleur résultat dans tout le département de Pikine y avait à peu près une centaine de listes en compétition ci département bi yëpp mm. donc ci Pikine di douze communes yi yàlla dogal ñu génn premier Euh, taux sos quarante à peu près quarante cinq pour cent des suffrages exprimés donc def ñu aussi ci région de Dakar ñun ñi nga xam ne ñoo bokk biir APR le meilleur résultat bi APR am ci cinquante deux communes yi nga xam ne yëpp ñoo nekk dans la région de Dakar donc loolu nag mu nekk une satisfaction mais aussi mu nekk un motif d' parce que waaw góor da yokk ngóora signal la ñu population bi joxaat nañu yéen a ngi liggéey mais gën leen góor góorgóorlu donc moo tax ñu laxasaayuwaat vraiment pour fas yéene gën àndaat ak ñoom pour liggéeyal suñu askan ba lépp lu ñu bëgg rek ñu taxaw ci ba mu yomb. mu nekk le contraire ak yeneen commune yi nga xamante ni ñoo fi nekk surtout seen mm-hmm. coalition. Mm-hmm. ci bëri seen localité dañ ko dañ ko ñàkk. Mm-hmm. surtout tam xam tamit mën nañ jàpp ne ñoo la ëpp tur sax. am ndombal tànk yu gën a dëgër ci biir APR. yow nga ñëw gagné loolu secret boobu lan la. da nga proche ak population bi. waaw ba nga def foofu la wala. waaw lépp la liggéey la jege jege sa askan la nekkal leen fii parce que comme ni ñu koy waxee maanaam nit ñi tollatuñ jamono boo xam ne xaalis day ñëw rek jënd mbir yi déedéet dafa am liggéey boo xam ne da nga koy def def ko sur la durée mm. ay at yu bëri parce que nit ñi dañu a xel di la seetlu ku leen amal njëriñ xam nañ ku ko amul aussi xam nañu ku leen di liggéeyal xam nañ ku ku leen liggéeyal xam nañ ku leen yëg xam nañ ku leen yëgul aussi xam nañu donc comme ni nga ko waxee élection yi du woon xaalis moom moo ko doon lijjanti te nekkul élection yoo xam ne aussi xëy na ci benn weer ñaari weer ngay ñëw rek askan wi xëy na ñu ne way jox na la suñu baat déedéet donc dafa am marque de confiance boo xam ne ni tey askan wi bu koy def day nekk mu xool la ci sa xool fi nga jëlee gox bi xool fi nga ko andi mu évaluer la mm. nag wax dëgg yàlla Pikine Est fi ñu ko fekk ak fi ñu ko indi wax dëgg yàlla unanimement population bi képp kuy wax te yàlla tax dinga xam ne bëri na ay jéego yu bëri yoo xam ne ni tey yàlla dogal na tey bi ñuy ñëw ci gox bi fekk ñu ko fa mais sur le plan infrastructurel lu baree bari tabax nañ ko fa muy ay maternité muy ay cyber muy ay bibliothèque muy ay place publique ci cadre coopération aussi ñun mosuñu am ambulance tey dem nañ ba am ci ñaar mosuñu am corbillard dem nañ ba am si ñaar ak matériel médical conteneur bu jëm ci mairie bi mosu wàcc andi nañu ay conteneur andi ay échographie matériel médical donc pour jeunesse sport yàlla dogal la ñun bi ñuy falu maire mm. président ASC la ñu mm. donc li jiitu ñu nekk ay joueurs mm. après ñu nekk dirigent donc xam nañu dëgg dëgg dëgg tey li ndaw ñi soxla rawatina ci wàllu sport ci wàllu aussi formation ak entrepreneuriat ñu am ay jéego yu bëri yoo xam ne ndax yàlla dañu jiitee association à la base donc mu nekk loo xam ne ni tey ci wàllu ndaw ñi aussi bëri na ay jéego yoo xam ne ni tey def nañ ko ci wàllu formation ndaw ñi ci wàllu euh, encadré leen ba ñu taxalee start mais aussi ci wàllu sport bëri na ci loo xam ne ay jéego yu ñuy def ci gunge leen ndax man mii vice président la AS Pikine te comme ni ma ko waxee lu ko jiitu président ASC la woon donc xam naa réalité bi nga xam ne moom la ñu judd. voilà voilà mbër yi aussi. ñëpp xam nañ si waaw ñëpp xam nañ sama relation ak mbëru Pikine yi te mun naa xam ne muy mbër yi muy ñëpp ñi nga xam tey dañu nekk si waxuma Pikine commune. Pikine sunu commune ñun mais département de Pikine te amul benn acteur moo xam acteur sportif wala acteur culturel wala acteur social boo xam ne tey amuñu ñëw relation. information te comme ni nga ko waxee du loo xam ñun ñoo koy génn di ko wax mm. ndax ñun suñu génn di wax naan ñoo def lii musul am mm. mais tey ñooñ ñi nga xam ne tey bu ñu geesoo di ñu gis ñu di leen taxaw mm. ñoom ñooy demaat ci ay plateau wala dem ci ay doomu aadama naa leen dëgg yàlla bu ñu soxlaa dara tey bu ñu geesoo Isaaxa la ñuy gis mu nekk suñu kanam nekk suñu wet. loolu moom xam nañ ci dara. sur hmm. euh, le plan sportif. Hmm. moom am na luñ ci xam lu bari bari. Hmm. alors bu ñu ñëwee ci jàngat gannaaw bi nga xam yow bokkoo ci ñi nga xamante ni dañ leen a laminer seen localité. moom waa walloog euh, yeewi moom yaa leen jaaxal. Euh, xam naa dina la woo sax nga transhumé. <laughs> <laughs> benn benn benn benn jàngat ci législative yi. muy élection député yi. dafa bëri ay localité yoo xam na ngeen ko ñàkk mm-hmm. yu bëree bëri bëri mm-hmm. te kenn leen sonal muy mm-hmm. Ousmane Sonko lan moo tax vous avez perdu du terrain ci ay localité jàngat nga ci am waaw loolu aussi comme ni nga ko waxee am na ay gox yu bëri yoo xam ne ñàkk nañ ko ci euh, législative mais am na aussi ay gox yu bëri yoo xam ne gagné nañ ko parce que tey bu ñu xoolee Sénégal 46 départements yi 30 yi Benno Bokk Yaakaar moo ko gagné donc tey bu ñuy xool ci wàllu nombre mun naa wax ne majorité qualifiée ci wàllu département tey yàlla dogal na Benno Bokk Yaakaar moo ko gagné dëgg la nag opposition bi am na ay département yu mu gagné mais ki nga wax noonu Ousmane ko moom kaawu Pikine bokk ci parce que Pikine wàllu mun naa wax ne ak PDS ñoom ñuy ñi nga xam ne seen bannière lañu fa demee woon. Hmm. donc loolu réalité la bu bu am mais loolu aussi tey dafa am une analyse ñun bu ci def boo xam ne xëy na hmm. contexte bi élection législative yi amee hmm. maanaam tey contexte difficile la. te tey population yëpp aussi du ñëpp ñoo doon comprendre xëy na xam ne li xew ni jógewul ci président de la république wala si gouvernement mooy benn bu njëkk mooy dañu jóg si contexte post covid boo xam ne tey am na lu bëri loo xam ne tey pendant deux ans économie dafa taxaw dafa gàllankooru xam nga dëkk bu doon xalaat ne fii ak ay at yu néew yaa ngi jógee ci croissance bu 7 7 pour cent mm. taux de croissance di espérer dem ci croissance à deux chiffres mm. covid bi ñëw dal sa kaw nërmel la ba ñuy wax sax naan yow maanaam croissance nulle wala da ngay dem ci peut-être ay 1 pour cent ci ngay toll. donc pour dire simplement que am na lu bëri loo xam ne tey suñu économie yëg na ko biñ ci jógee tey am na li xew crise bu amaat muy guerre bi am entre Ukraine ak Russie te dëkk yooyu dafa bëri loo xam ne tey àdduna bi yëpp dañ ko soxla te ñaari dëkk yooyu ku nekk dafa am lu mu ci téye lii pétrole la lii gaz la lii blé la lii engrais la donc loolu bu bu manqué wala mu jafee ci àdduna dafay jur ay yokkute ci ay njëg hmm. donc beneen bi bu ñu xoolee augmentation prix du baril du du pétrole donc yooyu yëpp mu jur aussi yeneen augmentation ci yeneen produit ndax produit yooyu noonu dafa nekk ay produits yoo xam ne moom mooy équilibré très souvent yeneen produit nga xam ne su amee yokk lu mu ndaw ndaw ndaw yeneen produit yëpp. répercussion lay def répercussion lay dañ ko beneen produit dañ ko yëg yooyu noonu nga wax yooyu paramètres yooyu nga wax noonu. Mhm. est-ce que tamit euh, ndaw ñi bokk ci ñi nga xamante ne dañ leen a sanctionné. non mun naa moo tax ma ne la am na ñoo xam ne xëy na loolu nekk na loo xam ne nii. neexu woon ci jamono boobu mm. mais loolu aussi ñun message bi parce que dafa mission de sensibilisation et de conscientisation des masses boo xam ne ñun leaders yi dañ ko war a gën a def mm. te pour man bu dee am na lu ñu war a gën a yokk loolu la war a doon mm. mooy tey xamal nit ñi parce que des fois yokkute dina am tey États-Unis seen euh, maanaam essence fa la gën a cher que Sénégal te États-Unis producteur u pétrole la mais fu pétrole nekk si àdduna bi dem na jëli ji ko andiwaat ko dëkkam donc bu fa essence mu gën a cher que Sénégal France dëkk bu mag la possibilité yi mu am Sénégal amuñu ko tey diwlin France la gën a cher que Sénégal donc pour dire que situation mondial la boo xam tey am na inflation bu am te ñu waxee États-Unis niveau d'inflation bi fa am ni ñeent fukki at ci ginnaaw mosuñoo am niveau d'inflation bu ni toll loolu nag bu amee du am benn dëkk boo xam ne diñu la mën a épargner parce que nag contexte bi ñu nekk ci àdduna bi maanaam mondialisation lañ koy wax. mooy ñun ñëpp seen seen seen terrain bi ngeen perte li ngeen perte noonu yëpp. foofu ngeen ko wékk non non damay joxee hmm. ci. ay misaal. ci ne tey diggante bi. Mm-hmm. dund bi am na yokkute boo xam ne ni xëy na am na ko ci boo xam ne tey ñu ëpp ci population bi dañ naan la dund bi métti na ci ñun. Mm-hmm. donc am na ñoo xam ne loolu jur na xëy na merci ñoom surtout si centre urbain yi parce que bu ñuy analyser victoire wu maanaam coalition yële. Mm-hmm. opposition yi. tey bu ñu xoolee dafay nekk si yenn département yi nga xam ñoo nekk dakaar wala yenn centre urbain yi ay Thiès wala Ziguinchor donc loolu boo xoolee ci nekk foofu noonu. bu njëg bi yokkoo ñoom dañ koy yëgee ñoo xam ne ñi nekk ci monde rural bi nga xam ne amaana dañuy bay di dundee wala xëy na la ñuy dem di génne ci wàllu dépense mun na bañ a toll noonu ni koy yëgee du tolloo mm. donc tey bu ñu xoolee tey comme ni ma la ko waxee sur 46 départements 30 yi Benno Bokk Yaakaar moo ko gagné loolu muy tekki que malgré poussé wu opposition bi parce que loolu aussi da nga koy nangu mm. ne am na loo xam ne opposition bi gagné na ko mm. ci ay département mais malgré loolu Benno reste et majoritaire ci biir réew mi euh, reste et demeure majoritaire mais majorité boobu li ngeen mujjee def taf yëngal beeg ñam ñebal bi mhm. ak calcul politique bi ngeen def ba mhm. indi Pape Diop wax ak mhm. moom mu ñëw dugg moo leen may majorité assemblée non damay damay leeral ñi de moo leen mottalil de élection yi nii Benno est majoritaire à tout point de vue damay expliquer ci lijjanti non non du ci lijjanti balaa lijjanti bi ci damier balaa lijjanti c'est-à-dire liste Benno Bokk Yaakaar mooy list majoritaire léegi nag su ñuy wax majorité mm. dañu war a xam ban majorité la ñuy wax ndax majorité relative la ñu wax ndax majorité absolue la wax wala majorité qualifiée la ñu wax. c'est que seen calcul yooyu. non non du calcul non non réeraluñu askan dañ leen di leeral. non dañ di leeral dafa am ñoo xam ne. résultat yi ba muy génn ci ngoon si ba ci suba si. dafa am dem dem 3 jours jours. ngeen di ko dafa am ñoo xam ne non dafa am ñoo xam ne. naxaate la ñuy def ak manipulation. dañ doon gëmloo nit ñi leen ñoom ñoo gañe te gañewuñu hmm. tey Benno Bokk Yaakaar moo gagné élection yi dama ne bu ñu ko jëlee ci wàllu département ki am 30 département sur 46 moo gagné largement muy benn ñaareel bi bu ko jëlee ci wàllu député bu ñu jëlee député xam nga tey yow soo buggee jël nga ne gagné naa dakaar rek ne gagné naa réew mi yëpp est-ce que Dakar mooy Sénégal Dakar du Sénégal benn région la sur 14 régions donc yow ni nga ne mën naa gagné naa dakaar da nga naan Benno moo gagné Kaolack moo gagné Fatick moo gagné Podor moo gagné Matam loolu da nga ko war a am honnêteté wax ko te ñun li ñu gis ci opposition bi mooy ñoom. bu leen mbir mi arrangé ñu ne baax na jaar na yoon bu leen arrangé wul ñu ut ay lay yoo xam ne dañ koy làqatoo mm. élection yi bennoo moo ko gagné mm. ci département yi mm. ñaareel bi ci nombre de député bennoo bu dee dafa am 82 députés ki topp ci ginnaawam dane 56 la am muy muy yeewi wallu ne leen amoo leen 56 53 ngeen am ndax ñetti député yi ngeen dugal seen bos moom moo leen ko man maa ko moom donc ki topp yow nga yow mi nekk premier parce que bu dee rawante la dañ naan kan moo jël premier élection yi bennoo moo ko gañee léegi nag bu dee dañuy wax wàllu majorité absolue majorité absolue dafa am lu ñuy wooyee ci assemblée yëpp la am. le jeu des alliances. gis nga bu ñu demee ku nekk dem ak sa liste. bu ñu demee tey li yeewi bëgg a def ak wàllu. ñu ngi gëmloo nit ñi leen benn liste lañ am. naan intercoalition. loi bi xamul intercoalition. coalition la xam. moom dafa am ay député am. kee am ay député te pourtant ñu ngi gëmloo nit ñi ne leen ñun bu ñu boolee suñu député nii lañ toll. léegi bennoo moom amul droit moom. nii opposition bi mu nee ne ñun ak diw ñu ngi waxtaan bu ñu boolee suñu député am majorité parce que loolu moo leen sauvé moo tax ma ne la bu keneen ñëwul woon doo leen am majorité non dama ne majorité absolue bi ah. mooy maanaam tey am 83 député bi ah. dama ne ak majorité sax beneen bi ñuy soxla muy majorité qualifiée hmm. bennoo da koy ami te xamul tax mu koy am hmm. assemblée moo bindoo bu ñu demee liste yi ba pare hmm. dañuy toog ñu waxtaan mais tey diggante yeewee ak wallu wallu war naa mën a ñëw dans le jeu des alliances waxtaan ak bennoo ànd ak moom te pourtant yàgg na am élection yi génn Théodore Chérif Monteil bi demee woon nekkoon député bunt bi après est-ce que xam nga dafa nekkoon député wu coalition Benno Bokk Yaakaar ci ci la bokkoon Ibrahima Abou Nguet est-ce que xam nga dafa nekkoon ci ci ci euh, groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar Cheikh Tidiane Gadio demuloon bokk ci groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar loolu c'est naturel dans une assemblée mooy maanaam bu ñu xësee demee ak seeni liste ba ku nekk génnee la la askan wi jox day am ay déggoo yu am léegi wax léegi nag alliance boobu noonu nga xam ne ñoom mm. moom la ñuy jéem a def te réussir guñ ko mm. moom la ñu bëgg moom lañ bañ Benno Bokk Yaakaar def ko. instant yi naa yéen a gannaaw Pape Diop. am na ñeneen ñoo leen ñuy waxtaanal ñuy waaj a dugg mais loolu mooy yoon. dégg dégg naa am na wala amul. ma ne loolu am na te dina continuer di am. parce ah que assemblée. Mm. bu ñu fa xasee nekk député bi député du peuple la. d'accord. day xool fi mu jàpp ne ñooñu ñoo maanaam ñoo fi nekkal intérêt wu askan bi mu dem ànd ak ñoom liggéey mais ki nga xam ne nag moom sabotage moo ko andi wala blocage moom moo ko indi mais yow bu dee yow député nga parce que bu ñu la xasee fal député du peuple nga donc yow yaay xool groupe parlementaire bi nga xam ne moom nga jàpp ne mooy liggéey pour l'intérêt du pays te nag groupe parlementaire buy liggéey pour intérêt wu réew mi Benno Bokk Yaakaar. kenn koo leen doon courtiser di ko di ko di ko di a maslaa ak moom hmm. def na point de presse démb tamit ne hmm. moom musul dem fekk ji Benno Bokk Yaakaar doo du coalition ak kenn député indépendant la di Pape Djibril Fall noo jàngatee. am na ci sañ-sañ. yéen a dox non ma ne am na ci sañ-sañ dama ne tey Benno Bokk Yaakaar ah. comme ni yeneen coalition yi nga xam ne dañoo gëmloo nit ñi ñoo ànd te ànduñu hmm. ni ñuy jéem a fexe ànd ak yeneen coalition yi ñun noonu la ñu amee sañ-sañu dem waxtaan ak yeneen coalition yi dama ne bu ñu xësee def élection ba résultat yi génn ñu xam kan mooy député kuy député war nañ dem tàllala la loxo ne la kaay ñu ànd liggéey donc loolu nga xam aussi moom la Pape Djibril Fall def sañ-sañam la am na droit ne man bokk ma fii bokk ma fële te loolu désaveu la pour opposition bi xam nga lu tax ñoom dañ doon taxaw di gëmloo Sénégalais ni ñoom ñeneen ñi nga xam ne ñëpp ànduñoo Benno ñoom lañ faral te ci benn seen biir campagne lañ doon wax mooy ku àndul ak ñun ci pouvoir bi nga bokk. tey aujourd'hui ñu ngi weddiwaat ñoom seen bopp bi élection yi passé bëgg a jël ñooñu dugal leen seen biir alors que ñoom ñoo ne comme que nee nañ pouvoir moo leen yabaloon tey bu dee pouvoir bi am na 82 députés yeneen ñetti ñetti yi des est-ce que waroon na amati débat parce que ñoom seen campagne yëpp dañ doon wër di wax ne bu leen votel ñii parce que ñii ñoog pouvoir bi ñoo yem pouvoir bi lañ àndal donc dem di waxtaan ak ñooñu wala di yaakaar ne ñooñu war nañ leen apporter un soutien parce que ci seen campagne yëpp fépp ñu taxaw dañ taxaw ne sénégalais bu leen votel ñii ndax ñii ak Macky Sall ñoo far donc ñun ñi ànd ak ñun c'est logique et normal ñu ànd ak ñun c'est dans l'ordre naturel des choses parce que nag tey kuy uti baatu askan wi soo ko amee da ngay dem ci assemblée bi war fa teewal askan bi da ngay xool groupe parlementaire bi nga xam ne moo fa toogal njëriñu askan wi nga ànd ak ñoom. loolu amul tiitaange ci yéen ngeen dem wax ak ñoom pour mën a am majorité parce que dee nañu cohabitation bi dina métti si yéen. non amul tiitaange xam nga cohabitation moom wax la bu ñu doon agité amul te gëm naa ne du mus a am. parce que du ñu ñee presque dañuy xaw a toll ak yéen. non doo leen ëppale dara. non ëppale nañ leen dara. tey aujourd'hui du am mais tey bu ñu leen ëppale dama ne la. Ah. xam nga ñoom li ñu lay wax benn ñaar boobu. Hmm. mooy dañoo jàpp ne ñoom dañuy ànd. Hmm. man ba tey fii may wax yow nii. jàpp naa ne ànd boobu mun naa bañ a sotti. mun naa bañ a sotti ba ci assemblée dañuy na leen da ah. leen ñëpp kenn ku fa nekk nee naa la ki nga xam ne da nga ne da ngaa ànd ak moom ngeen ba ci waaw mais dëgg la mais xam nga lu tax non xam nga lu tax. te li koy firndeel bi ñu génnee ñoom waa yi dañ ne am nañ 56 waa PDS ne am nañu 24 ñu waa PDS ñoom ñu ne waa PDS 24 lañ am ci lendemain bi la P waa wàllu def conférence de ne ñun amuñu 24 27 lañ am ñee amuñu 56 ñun 50 ça veut que ànduñu suñu àndoon dañ naan bu ñu boolee ñun ñëpp 82 lañ am doo xàmmee kii bokk fii wala kii bokk fële. donc ànd bi ànd naxante la. parce que ñoom ñëpp ku nekk si ñoom. dafa mais li nga xam ne nga gis nañu maître Abdoulaye Wade def na benn communiqué. waaw gars yi itam nañ communiqué. ne hmm? tey la ñu gën a ànd te dañuy continuer. waaw xam nga loolu mooy waxu communiqué bi pacte woon. non xam nga loolu mooy waxu communiqué bi. ànd bi bu amoon Pape Maguette. damaa yaakaar ne kenn du ne yow diw dafa nangu samay député boole ko ci bosam. Hmm. su doon ànd bi am na. Hmm. dama ci bu ñuy wax rek. ci xel. bu doon ànd bi am na maag yow jàpp na ne ñoo ànd lépp lu ñu am maag yow ñoo ko bokk xàmmewoo li ma ci moom ak loo ci moom est-ce que man dinaa taxaw naan yow Pa Pa Maguette yow juróom nga ci moom man ñett laa ci moom. ku ci nekk war na mën a défendre sa sa parti. mais loolu laa lay expliquer moo tax déedéet moo tax ma ne la ànd bi dëgguwul ànd bi ah. sincèreul ñoom dafa am lu leen boole woon hmm. l'ennemi de mon ennemi et mon ami dañoo am benn adversaire commun mooy bennoo bokk yaakaar ñu ne nañu xool nu ñu mën a jéem a ànd parce que suñu demal su bopp pour sot parce que nag ñoom ñëpp xam nañ ne hmm. amul gox fii boo xam ne ni buñ fa àndul hmm. mun nañ am lii ñu am nii parce que li leen ko may seen stratégie la boo xam ne def nañ ko. mais tey man damaa jàpp ne opposition aussi dafa war a am pluralité dafa war a am diversité. mooy biir opposition yow da nga war a taxaw ne man nii laa xalaatee. diw ni nii laa xalaatee parce que ñun ñëpp ci biir opposition bi. bu doon dañoo bokk du ñu xalaatee jarul muy doon ay parti wala ay coalition yu bokkul. nañ ko créer mu doon benn parti benn coalition te loolu amul pour kaawu opposition parce que bu doon ànd bi dëgg la benn coalition la ñuy taxawal. am benn tête de liste defar benn liste proportionnelle defar benn liste au niveau de tous les départements mais loolu amul donc loolu mu tekki lan mooy opposition bi dañuy naxante seen biir parce que kenn ku nekk si ñoom daa am intérêt boo xam ne moom ngay toppatoo te jàpp ne sa morom nga mun a sukkandiku def ko escalier pour mun ci jot d'accord ah. kenn ki nga xam ne mooy seen ennemi juré moo leen sonal moo leen ni def marquage à la culotte hmm. moo leen lëjal huit moo leen ni bàcc bàcc yu métti di Ousmane Sonko hmm. ascension bi muy def jaaxalu leen surtout tey def na benn conférence de presse mais hmm. il sera candidat pour 2024 gën na leen ah. xoqatal de non jaaxaluñu bi jiitu mooy bàcc yi ngay wax gisuma ko fi mu ñu bàcc parce que nag tey. élection non non dama koy dama koy teg ci ay fait. dama koy teg ci ay fait calcul yooyu arithmétique non dama koy waaw mais dama koy teg ci ay fait li may wax. mooy tey hmm. li ngeen di wax bàcc wala gaje yaa ngi ko jëlee ci <laughs> élection locale yi. mais élection locale yi ñun amul fu ñu gañe woon te perte ko. Hmm. ñun fi ñu gañewul mooy fi nga xam ne ni mosuñu ko woon gañe. léegi rek loxo yi mu nekkoon xëy na jóge ni seen loxo ñooñu dem ci ñoom loxo waa yeewi. Ah. mais tey ñun Dakar gañe ko woon dañu waxante dëgg gañe wuñu woon Ziguinchor donc loolu ñoom bu ñu fa bu ñu fa gañee xëy na ñun dañ ko buggoon jot mais yàlla dogaluñ ñu jot ko mais ñàkkuñ lu ñu amoon parce que nit li ngay ñàkk mooy loo téye sa loxo nit ñëw nangu ko. vous avez fait ne du question mauvais choix mais dama la bëgg a expliquer ne la maanaam ñoom li ñuy wax ne dañ ko gañee nekkul woon ci loxo Benno Bokk Yaakaar donc yow gañewuloo dara ci loxo Benno Bokk Yaakaar léegi candidature bi muy wax non moom la mënuñu tiital parce que nag président de la république parcours bi mu am. nga xam ne ci histoire du Sénégal Sénégal amul kenn ku yàlla defal loolu sunu borom nag mooy maye. Mm. Macky Sall parcours bi mu am. Mm. parcours politique bi parcours mm. institutionnel bi ndombo tànk yi mu. yi mu takk ci réew mi position yi mu occupé yàlla dogalul benn sénégalais bu mu occupé position yooyu yëpp donc kooku nekkul koo xam ne apprenti politicien nga bu toll ci njàng politique koo xam ne mun nga ko jaaxal nit ku nekk am nga sañ-sañ ne man. candidat la présidentielle apprenti politicien la. non apprenti politicien apprenti politicien la ma ne apprenti politicien bu toll ci njàng. munu ko jaaxal dafa toll ci njàng. ndax nag politique xam-xam la. Mm-hmm. boo xam ne da nga koy jàng ci ay kayit mais da nga koy pratiquer sur le terrain te pratique boobu nag Macky Sall balaa muy doon président xëyul xëy rek doon président. Mm-hmm. dafa am parcours. Mm-hmm. te parcours boobu noonu moo tax bi mu dee ba toll ci laaj réew mi te gëm naa ne sénégalais peuple sénégalais am na maturité boo xam ne. lu ñu dénk réew mi aventuré maanaam jóge fële rek ñëw yuuxu def du cinéma def film victimisé wu ñu jox la réew mi Sénégal tollul foofu parce que nag bu ngeen fàttali ko réew mi ñu ko mës a jiite ñëpp dafa am parcours bu gudd bu yaatu boo xam ne dañu faa jaar muy le président Senghor muy le président Abdou Diouf muy le président Ablaye Wade muy le président Macky Sall Sénégal ku amul parcours politique waxuma nag mën nga nekk si beneen domaine nga am parcours dans le monde des affaires. wala dans le de la culture. mais est-ce que style politicien yi tamit bokk nañu. non dama ne la dama ne peuple sénégalais li askan bi jox nañ ko baat. dama ne askan wi jox nañ ko baat dama ne dama ne askan wi. li ma gëm mooy peuple sénégalais peuple bu mature la. du ñu jël réew mi di ko dénk aventurier. Hmm. koo xam ne da nga toll ci njàng te nag li tax sax ñun ñu war a gën a tiit. Hmm. mooy ki nga xam ne yow ci njàng bi da ngay jàngee sax maanaam wane nga ne. yow sa style de management wala boo tollee ci gestion xuloo xeex wax ju ñaaw ak xuppante ci nga koy teg Sénégal soxlawul loolu Sénégal ki ko war a jiite dafa war a teey dafa war a dal dafa war a am xam-xam dafa war am expérience parce que Sénégal dafa am ay réalité li ñuy jéem a gëmloo Sénégalais yi di def show di def ay film di yuuxu ci mbedd mi di xataraay loolu tabaxul am réew réew xam-xam moo koy tabax ak sagesse teey dal ndax bu ñu la dénkee avenir wu ay millions de personnes 17 millions de sénégalais dinañ ko xëy teg ko ci loxo benn waay bu jóge fële ñëw parce que def na un de victimisation dañ maa bëgg a def lii daal di yuuxu xuloo saaga ay magistrat saaga ay kii te nag gis nga lépp lu feeñ ci euh, sëy nuyoo woon na ci ngoro gi dañ kaa fayu te lii ma gis ci moom particulièrement mm. man jàpp naa ne di ko xalaat sax si ñu war a jiite wóorul mm. parce que nag tey am na loo xam ne nii bu dee da nga ko tàmbalee maanaam ngay naaw say dunq di di ruus te ruus bi may wax mooy bu dee da nga da nga doon leader boo xam ne da nga aspirer di jiite réew dafa am loo xam ne ay assurance yoo war a jox yow sa askan ci ne yow réew mi li jiitu mooy bés bu ko yàlla tegee sa loxo di nga fi andi dal bu ñu ba yàlla tegee sa loxo ci ci réew mi di nga fi mun a créer climat social bu apaisé mais koo xam ne fu mu génnee wax nit ñëpp taf seen gémmiñ bàyyiwuloo kenn du magistrat du waa conseil constitutionnel du du du ministre du député du xalif généraux du sëriñ foo waxee rek am na ay kàddu yu ñagas am na ay kàddu yu ñaaw te loolu dañ ko warul jàngal suñuy ndaw ndax tey Sénégal réew la moo xam ne nii pour man mm-hmm. nekk fi ndaw warul tekki maanaam ñu war a dugal sa bopp que da nga war a di wax lu la neex danga nga war a def lu la neex mm-hmm. dañu la waroon dugal seen bopp esprit de responsabilité tey yow même boo amee loo xam ne naqarin la am na forme ak i teggin yoo xam ne moom lañ xamee Sénégal donc ñooñu hmm. Sénégal gëm naa ne hmm. boolewuñ leen ci plan wu ñi nga xam ne war nañ jël baat di leen ko jox parce que nag li ko waral mooy hmm. li ñu war a mel ci wàllu comportement ci wàllu jikko ci wàllu taxawaay matewuñ ko kon moom nga tuddee apprenti mm. apprenti politicien waaw ko jógee fee rek ñëw mm-hmm. te mi ngi leen di bàcc bàcc yu metti moo leen non bàcc bi amul léegi léegi bàcc ñu fenn waaw léegi ñu ñëw ci nouveau gouvernement mm-hmm. xam naa ñaari question moo ci des ñu daal di tàggatoo mm-hmm. dañu le nouveau gouvernement bi nga xam ne yàgg nañ ko xaar boobu ba tey président dafa mel ni kii mi ngi hésité dafa mel ni kii mi ngi tabax gouvernement boobu ba tey euh, taxawal gula ko surtout euh, poste euh, premier ministre bi xam dañ ko réhabilité waat war kenn pour mu nekk premier ministre temps yi sax dégg nañu ay tur yu ciy wax ak yooyu noonu. Mhm. Euh, loolu noo ko jàngatee lan moo tax gouvernement boobu yéex ak tam premier ministre bi. waaw mais xam nga président moom la constitution bi jox euh, maanaam sañ-sañ pour mu mun a tànn premier ministre. limité wu ko aussi dans le temps neewu ko tey la wala suba la wala ginnaaw suba la te nag choix bu toll noonu bu toll ni tànn premier ministre. vraiment ki koy def war na jël temps bi war pour def le bon choix. parce que nag dafay engager l'avenir de la nation ndax premier ministre mooy coordonner l'action du gouvernement te nag bëri na foo xam ne président du fa mën a taxaw moom moo fay taxaw donc choix boobu mënu nekk choix bu ñu war a def rek dans la précipitation war a topp la clameur populaire nit ñaa ngi coow dañ ko war a topp. te président mën na am problème boobu ci gouvernement pour mën a non du ñàkk problème bi mais dama ne dafa am temps. Hmm. boo xam ne ni tey moom moo koy jugé tey Pape Maguette mun nga am dix profils yu baax. Hmm. mais dafa am ay éléments yooyu mettre en avant. li contexte bi laaj. réalité il paraît que nag wóoluwul ñenn ñi léegi quoi. waaw mais xam nga tey xam ne ñu ñu ngi xool saison bi. waaw non loolu moom non est-ce que loolu moo retardé affaire non loolu moom dama mun munuma dugg si géntu njiiti réew mi mais li moom li ma xam. non déet dama ne man munuma munuma dugg ci gént. Hmm. wala xalaatu njiiti réew mi mais waaw ah, mais waaw mais dama ne xalaatam. <laughs> dama koy bàyyee sañ-sañ boobu mais hmm. leen laa xam. Hmm. mooy président Macky Sall. man am naa ci moom confiance ci ne dina def le bon choix choix bi nga xam ne tey bu ko annoncé sénégalais yi sénégalais yi dans leur écrasante majorité dinañ ci adhéré dinañ ci ànd parce que dinañ xam ne ki mu leen tànnal maanaam mate na poste bi am na xam-xam bi xam na réew mi mais aussi nekk na nit koo xam ne nii gëm naa ne dina mën a jëriñ sénégalais yi ci position bi nga xam ne foofu lañ koy teg donc man awma ci vraiment xel ñaar wala wala jiixi jaaxa ci tànn bi nga xam ne moom lay def te dina doon tànneef bi gën léegi nag temps bi pour man am na choix yoo xam ne bu buñ ci tollee ndax yàkkamte gaawul moom heure bu juree doom réccu lay tudd hmm. donc décision bu mu ci mën a doon jël le temps qu'il faut ba def le bon choix dafa gën nga demee ci précipitation muy jur après ay regret d'accord léegi gouvernement bi nga xam ne ñu ngi koy xaar. Hmm. Euh, à chaque fois ñu ne remaniement léegi mu am ba tey amagul. Hmm. tey par exemple doon taxawal gouvernement bu yees. gouvernement bi ban gouvernement la war doon gouvernement. des technocrates mhm. wala bokk ay politiciens yu xarañ yoo xamante nii mhm. lu ñu perdoon lépp ci askan mën nañ ko récupérer parce que mandaam li ci des bareetul mhm. waaw loolu xam nga man moom damay wax ne différence bi ñu bëgg a def entre technocrate ak politique mm. pour man loolu Sénégal xeetu naxaate la rek mm. parce que ñi ñuy woowee politique homme politique mm. comme ñun ci université yi technocrates yi ñu wax jànge fa lañ jàngee si grande écoles yi nga xam ne ñun fa lañ fa lañ jàngee ñun foofu la ñu jàngee diplôme yi ñu am ñun foofu la jam non non non c'est-à-dire non non dama la bëgg a expliquer ni ñuy jàppee ñun technocrate mooy koo xam ne politigul woon léegi kii politique mun naa am xam-xam ak xereñ gu toll wala bu raw ndax am na ñoo xam ne ñun mm-hmm. xëy na tey ñoom ñu ngi tuddee technocrate bi ñuy jàng mun naa jël misaal si man mm-hmm. man major laa génn suma promotion te bëri na ñoo xam ne damay joxe misaal waxuñu ko actif ak ko actif waaw moom laa la ci moom laa la moo tax ma ne la ñàkk non non c'est-à-dire différence bi ñuy bëgg a def c'est comme yi mm-hmm. ñoom ba ñu yaree jàng jànguñu wala lañ war a jàng jànguñu ko jàng nañ ko am xam-xam bu ñu toll donc dichotomie boobu ñu bëgg a def pour yenn saa yi di bëgg a disqualifier homme politique loolu laa ne d'accorduma ci parce que nañ leen koy wooyee am na ñoo xam ne ba ñuy jàng ñun ñoo leen raw te aujourd'hui dañuy sol mbubu boo xam ne mbubu technocrate la mu mel ni yow mi nga xam ne yaa def politique ba jàng jotee jàng fekk da ngaa jàng am xam-xam am métier avant la politique balaa politique di am ay cadre la ñuy jàng am ay diplôme liggéey mën nga nekk technocrate léegi nag waaye tamit nekk sur le terrain waaw dem dagaan askan léegi nag kii mën na bañ a bokk léegi nag ki nga xam ki nga xam ne ni tey dañ naan ko Sénégal bi dañ koy tuddee technocrate c'est comme si ki nga xam ne sol woon mbubu politique hmm. ma ne man li ma jàpp hmm. mooy ki nga xam ne tey am na xam-xam bi ba pare avenir u Sénégal jaral ko hmm. mu sol mbubam sol mayoom di wàcc terrain bi dem ci askan wi lu mu yor mu bokk ak ñoom mu jaral ko xeex jaral ko xuloo jaral ko werante kooku pour man bu dee choix dafa war am kooku mooy prioritaire parce que kooku am na lu mu wone mm. ci ne ah man de askan bi jaral na ma lii parce que nag pama ñun ñëpp ku ci nekk mun na am lu mu am mm. mais jëm ci askan bi mm. yow mun na laa jaral fukk man mu jaral ma téeméer ki mu jaral fukk ak kim jaral téeméer waruñu mën a tolloo mel ni ki nag looloo leen manqué fi mu nekk nii parce que askan bi ñu ci bëri loolu la ñuy jooy li Isaaxa di def biir Pikine Est dafa mel ni ki am na ñu bëri ñu nekk ci nguur gi gars yi sax duñu leen gis xamuñu leen sax loolu am na des ministres des députés non loolu am na te kenn xamu leen non loolu réalité la bokk na ci li leen sanctionné loolu réalité la te nag pour man ci dama doon analyser sànq ci li nga xam ne moo jur yenn gox yi nga xam ne aussi ñàkk nañ ko yooyu bokk na ci mm. mooy tey am na ñoo xam ne président am na ci ñoom confiance dénk la ay responsabilités yu mag mm. te nag loolu delloowuñ ko ko moom mm. te delloowuñ ko askan wi parce que askan wi gisuñ leen soxlawuñ leen ba dégg leen duñ leen woo ba jot leen taxawuñ leen donc loolu lu ñu war a ñun aussi acteurs politiques yi nga xam ne ñoo présent à la base parce que nag dama gëm ne ni nga koy wax sànq équipe bi président war a tànn dafa war a nekk équipe boo xam ne nii ay borom xam-xam la war a doon mais ay acteurs politiques ñu xam réew mi. xam sénégalais yi nekk ci wetu sénégalais yi. parce que aujourd'hui tey li ñu soxla mooy population bi. Mm-hmm. ñu xam lan mooy seen i jafe-jafe ñu uti ci saafara. Mm-hmm. mais tey soo falee benn borom xam-xam boo xam ne xamul réalité réew mi ban sens la am. amul sens donc li ñu soxla mooy ay leader politique yu xam réalité réew mi te nag dama wax nga Sénégal bu doon naxaate mun na fi am avant. Mm. élection yi ñu génn. Mm. leader bu nekk fii ci Sénégal xam nañ noo toll. parce que élection yi bu njëkk ba dañu daan def liste. suñu paree mu am ay complot am ay achat de confiance. am ay nga jënd sax sa élec mairie. Sénégal gis nañ sax kuñ ne diw loo war a nekk maire keneen ñëw ne ko fay naa la temps mu jox ko ko. mais élection yi ñu génn. Mm-hmm. suffrage direct la. mooy ku nekk Issa dafa taxaw yëkkati loxoom ne man maa bëgg man. mooy raw gàddu raw gaal képp koo xam ne ni man doy naa la ñëwal jox ma mm-hmm. ñu xam ku nekk kan moo gañe ku gañewul bi ñu ci jógee ñu xam ku nekk ñaata nga gañe ak naka nga gañe seen i milliardaires dañoo donc loolu li muy tekki mm. mooy peuple sénégalais mm. sanctionné positivement ñi nga xam ne ñoo nekk ci wetam sanctionné négativement ñi nga xam nekku ci wetam mooy maturité boobu ma lay wax ne peuple sénégalais da ko am mm. gis nga bëri na fuy am coow ba ci yenn leaders yi man li ma jàpp mooy sénégalais bu ñëwee ba toll sax ci présidentielle du ñu fal n'importe kii réew mi cuune du ko jiite Sénégal cuune mosu ko jiite. Hmm. di nga gis ay réew ñu ne la noo fi benn euh, benn militaire moo for pouvoir bi wala coup d'état wala Sénégal du réew yooyu. Hmm. Sénégal réew la moo xam ne ku yàlla teg ci bopp réew mi ñu war la votel ci ay carte hmm. sénégalais dafa am ay assurance ak ay garantie yu wóor yoo xam ne ci sa parcours maanaam dañu la lañ bët minimum benn vingt ans xool fi nga jaar poste de responsabilité yi nga am ba tey boo tollee ci laaj réew mi ñu xam ne kii bu ñu ko ko joxee mun na dox président gëm sa bopp. Mm-hmm. Bougane Gueye Dany maa ngi ko mm-hmm. seetaan ci télé. Mm-hmm. mu ne li ñu daloon. ne tout sauf. Euh, diw. moo tax ñu indi Ablaye Wade. et tout sauf diw. moo tax ñu indi Macky Sall. loolu nañu ragal mu dalaat ñu. 2024 bii ñuy dëgmal loolu noo koy jàngatee. waaw loolu c'est que xam nga discours tout sauf. pour man discours la bu amul contenu. discours vide de sens la. non xamul tax. non xaaral nga wax noonu mooy li nga wax nii. waaw non moom laa la wax non tout de suite. waaw non loolu laa lay expliquer mm. su ma expliquer di nga ma ko di ma dégloo di nga ma comprendre. Mm. dama ne tout sauf diw. Mm. discours vide la. maanaam yow da nga naan diw mooy le meilleur profil. Mm-hmm. ñu ne la lu tax nga joxe ay argument tey soo ma nee Macky Sall dama naan Macky Sall est le profil boo ma ko laajee ma wax la ko ma ne la parcours mën na la njàngam mën na la post yi mu occupé may na ko tey mu am trajectoire boo xam ne niveau de de de décision bu nekk. est-ce que waxul par défaut. non non non cest mais. non moom laa boo xam ne xëy na. non sens bi muy waxee il est incapable pour gérer suñu dama ne tey Macky jël bëgg a jëlee kee pour indi fi kii. non non déedéet mais dama la bëgg wax ne la pour kaawu Macky la waaw Macky Sall ku ne xam na ne dama ne Sénégal cuune du ko jiite. Mhm. Sénégal du yeneen réew yi. Mhm. buñ ñu comparé ñooñu. Mhm. Sénégal cuune du ko jiite c'est-à-dire ñu tem ba sénégalais di yëkkati seen baat di la ko jox parce que gis nañ ci yow sa profil maanaam ay yu wóor yoo xam ne ci sa parcours tey mun nañ ne diw bu su mu ko dénkee réew mu mun a mun a doxal léegi nag slogan wu tout sauf dafa yàgg ci opposition boo xam ne tey dañuy ñëw diw neexatu leen wala amatu ci Sénégal dama fi gis benn affaire bu doy waar da ngay gis koo xam ne doon na ànd ak président wala faroon naag moom wala dara day am benn intérêt bu mu soxla ci moom amu ko rek mu bëgg a taxaw ne kooku léegi moo yées ci àdduna sànni xeer fekk affaire bi warul doon ay gestion de petits intérêts personnels non saa à dire wërsëg yi yàlla moo ko yor ku nekk la nga ci war a jot di nga jot bu mm-hmm. jotee mm-hmm. mais dañu war a mettre en avant l'intérêt du Sénégal mooy tey yow nit ki mm-hmm. boo déggee da nga dem ba nga xam ne nga ne xëy na doyatu la mais doyatu bi dafa war a tegu ci lenn mooy lañ ko santoon ci liggéey defu ko wala nam ko war a defee du noonu mais tey li ci ëpp dangay gis ne ay problème personnel lay doon boo xam ne da koy am ak nit rek ñeneen nit ñi dafay jóge tey te nag réew war sa doxee noonu mm-hmm. alors fi ñuy jeexalee mooy coow li nga xam ne instant ni moo ne kur ci biir réew mi mm-hmm. di hôpital la daan teg dañuy koy toxal dañuy tabaxaat hôpital bi mm-hmm. ñu ngi naan am na benn pàcc buñ ci jaay mbir yi leerul ba ay malaat ñu war leen génne am ay takk der ñëw taxaw ci bunt bi ba sax personnel bi pour ñu dugg ci biir hôpital bi sax problème la. Mm-hmm. Euh, yow yooyu ban explication nga ci mën a indi. waaw man daal li ma ci mën a jàpp. Mm. te nag mu nekk une voix autorisée moo xam ne moo wax muy le directeur de l'hôpital. Mm-hmm. mooy tey ñoom ñëpp yëgaloon nañ leen ne. Mm-hmm. dañ leen kii beneen bi aussi. li mu wax ma dégg ko mooy du hôpital bi dañu naan service yi tëj nañ ko déedéet dañ ko déplacé. maanaam dañ naan tel service. dañ ko toxal jëlee ko fii dem ko fële. donc euh, aéroport ñii dalal jàmm ñii ñii ñii voilà ñii hôpital Fann ñii hôpital Idriss euh, CTO. Mm. donc moom mm. li expliqué na ci ne ku nekk ci ñoom moo xam service yi ñi ko jiite moo xam malade yi xamal nañ leen leen à partir de telle date mm. dañ leen di jëlee fii yóbbu leen fële. léegi nag ci option bi état bi jël gis nga am réew. kii jiite boo ko jiitalee foog nga wóolu ko parce que tey gis nga ñu dañu am opposition boo xam ci ay contradiction rek lay dox opposition bi taxaw di bañ option bi ñu jël nii ci wàllu montage financier bi ci ne tey am na lu ñu fa am ci suuf suuf boobu noonu war nañoo mën a may koom-koom bu ñu defaree li ci des ndax hôpital soxla lu toll noonu ci ay hectares hôpital boo xam ne 1910 lañ ko def mais Pape Maguette est réalité 1910 moo nekk fii ci Dakar. nit ñi dañu war a wax avec objectivité léegi tey bu dee état bi mun na am benn formule boo xam ne tey mun nañ ko cee tabax te doolewu réew mi maanaam du ca dem lu bëri wala sax du ca dem te du jafe te du jafe mais loolu Sénégalais dañ ko war a tàccu parce que ñiy wax loolu au même moment ñooy wër di wax naan Sénégal niveau d'endettement bi dafa bëri mm-hmm. donc léegi ñoom ñoo lay waxaat tey de les mêmes opposants ñoo naan Sénégal lu léegi lu tax ñuy naan dañuy jéem a jël trois hectares yi daal di koy joxe pourquoi demuñu leb ji wat alors que ñoo doon wax ne leb bi dooy na donc yow su dee dafa am loo xam ne da koy xeex pour man da nga war a logique ci sa démarche mm-hmm. tey munoo ne yow leb bi li ñuy leb Sénégal dafa bëri niveau dem d'endettement bi ni mu toll te tak cooli cooli yëpp critère de convergence de l'UEMOA ni mu ko fixé 70 pour cent du PIB yeggaguñ fa mm-hmm. donc tey même bu doon ñu ngi leb leb bi dépassé gul li ñu jàpp ne xëy na comme norme communautaire la mais ñi taxaw di xeex loolu au même moment ñu wëlbatiku di di wax leneen léegi nag dina am ñoo xam ne aussi dañuy bëgg des fois bu situation yi am ni ñu bugg ci profité pour régler ñoom seeni compte personnel mais man li ma dégg directeur hôpital bi wax ko waxuma sax acteur politique ci ne moom service yi nga xam ne yëpp la concerné ak malade yi fa dépendre déplacement wu loolu la te nag diggante solo ak sumeeku yaramu neen mënu ci ñàkk mooy tey dañ ne hôpital bi def na cent douze ans di dund digg dakaar xolu dakaar Pape Maguette mérité wul am hôpital bu sonnee ni la Dantec donc dañ ko war a defar léegi ci defar bi su dee am nañu montage boo xam ne do alalu Sénégal na maanaam dooñ tibb ci kees bi ndax ñun ñëpp xam nañ ne période de crise lañ nekk ñun ñëpp ñu ngi koy dund tey amul kenn ku yëgul dund bi léegi tey nga ne léegi na état bi soit jëlaat ci ay keesam wala état bi na dem lebiwaat alors que yow yaa doon wax ne état waratul leb parce que li mu leb dafa bëri donc su trouver benn formule boo xam ne mun nañoo dimbale tey ñu am hôpital te li ma dégg moom ñu wax de hôpital de niveau 4 mooy tey normes yi gën a kawe ñu mun ko am ci digg xolu Ndakaaru mais pour man loolu dañu war a applaudir de demain léegi nag ci wàllu déplacement bi ak yooyu fépp foo gis nga nit ñi dafa am confort boo xam ne ni seeni habitude lay doon soo leen bëggee déplacer foog mu métti foog mu jur tiitaange si ñoom mais il faut ñu xam ne tamit nit ki bëgg qualité di toile bi on peut pas faire des omelettes sans casser des œufs tey loolu la ñu doon wax ci terre bi loolu la ñuy wax actuellement ci BRT bi loolu la ñuy wax si yeneen projet buñ fi mës a yëkkati bi loolu la ñu doon wax mais aujourd'hui bu ci paree rek sénégalais yi doon wax loolu ñooy buuxante kontaan <laughs> fi mu toll nii terre bi ñëpp koy buuxante nga xam na tey dañ daan actuellement teer bi de des surchargé dañ daan am ñu doon wax naan terre bi du mus a daw mm-hmm. te mooy opposant yi nga xam ne ni ñoom nga gis tey ñuy taxawaat di wax waxu kii bi tey bu paree waatoon fii ci muy hôpital bi tous les sénégalais dañuy applaudir de deux mains parce que gëm nañ ne Sénégal président Macky Sall yéenewu ko lu dul jàmm yéenewu ko lu dul yokkute. Mm. te nag am na histoire ah. Mm. xëy na bëgguñ ci dellu si. Mm. am na régime bu ko jiitu. ñoom jaay hôpital bi lañ moo nekkoon seen projet. donc tey suñu waxee ne dañu jël partie bi trois hectares pour man service yi ñu soxla yëpp parce que fi jamono tollu ak dakaar dakaar dafa tuuti. te tuutiwaay boobu. daf ñu war a pousser ñun ñu mën a ci wàllu urbanisme ak aménagement du territoire ñu réfléchir ci espace yi nu ñu koy optimiser parce que jël benn dix hectares xoolu Ndakaaru exemple def fa benn affaire bu ndaw ci digg bi la ca des ci espace yëpp nga saxal ko mais loolu amul sens. Ah, explication bi moom euh, mën nañ wax ne. xëy na bu ko nit ñi déggee dana dalal xel. mais dëgg la ni nga ko expliqué nag. Hmm? nag xaw ma lu nekk ci biir. ndax ndaxte daal coow li bari na lool. Hmm. yow daal li nga expliqué loolu laa mën a respecté. xëy na yow yaa maîtriser lool. dëgg la surtout boo waxee ne. Hmm. Euh, li médecin bi wax. ak tamit argument yi nga xam ne. tamit hmm. loolu dañ koy bàyyi ak appréciation. Hmm. askan bi hmm. léegi nag fi ñuy jeexalee mooy. diwlin suukar meew location. cher na kañ la koy wàññi. waaw loolu moom suñu combat la ñun ñëpp. ndax wax naa la ko Pa Maguette dama si d' accord. loolu pexe bu ñu mën a def léegi nag ñun li ñu ñaan sénégalais yi parce que wax naa ko sànq ñun leader yi. ku nekk si niveau de responsabilité. non non non non c'est-à-dire Ukraine ak Covid bi. ñun no jeex na. non non non déedéet non non déedéet suñu yoon a ngi si non non suñu yoon a ngi si ba màgget dëkk bi mm. yàlla dafa dogal mm. ñun Sénégal vivre en autarcie nekk ci benn am difi dund si monde boppam. Mm. nekk ñu Jupiter nekk ñu Mars nekk ñu Mercure ñun fii lañ nekk ci àdduna bi. la ñuy soxla ñun ci suñu dund la ci ëpp dañ koy jéggaani loolu mooy la réalité du moment ñu ngi ñaan yàlla dem ba dootuñu soxla dara bitim réew. mais tey foofu la jamono toll te nag la ñuy andi. tey la ca ëpp solo damay jël exemple engrais bi président Macky la mu doxi ji woon mais intérêt wu Afrique la mais intérêt wu àdduna bi la parce que ñay reyante ñoom ci moment bi ñuy xeex ñu jaay kenn effectivement <laughs> léegi ñoom loolu nga xam ne dañ ko yor te ñun ñu soxla koo jënd mais tey soo amul engrais ndax sa mbay dina baax équation yooyu laa bëgg ñun ñu mun waxtaan ak sénégalais ñu comprendre ci ne am na loo xam ne ni bu amee fenn si àdduna dafay laal àdduna bi yëpp tey bu ñuy wax États-Unis mais États-Unis <laughs> c'est la première puissance économique donc bu ñu demee ba dara di am fedeen muy am maanaam ay yëg-yëg foofu noonu. Mm. ñu xam ne problème bu sérieux la léegi nag li ñuy ñaan ñun président te xam nañ ne am na bëgg-bëgg bi am na yéene bi mooy lu mën a def ci dund bi na ko xeeb. loolu moom sunu combat la te nag dañuy taxaw ci non dañuy taxaw ci dañuy sunu mooy sunu intérêt parce que nag pas mal ni ngay jëndee ceeb noonu laa koy jëndee ni ngay jëndee diw noonu laa koy jëndee te dañ am intérêt dañ koy jënd dañ koy jënd dañ koy jënd damay fay courant damay fay ndox pas mal cest à ni ah. niñ koy yëgee ñu koy yëgee noonu la ni ko Sénégal yëpp noonu yëgee noonu lañ koy yëgee te hmm. nag dañu jàpp ne loolu hmm. bokk na ci Sénégalais yi ñu bëri ñooy wax ak ñoom liñ lay wax mooy dund bi cher hmm. donc te loolu réalité mais ñu xam ne aussi séeraay boobu du président moo ko créé mais nag aussi boo jiitalee njiitu réew mu ngi jàpp te président aujourd'hui fii may wax yow nii subvention yi mu def boo ko cumulé si at mi yegg na huit cent milliards ci énergie ak ci daan fii may wax yow nii déggoo li ma la tey bu doon dañoo appliquer la vérité des prix hmm. damay jël kaawu gasoil nga xam ne ba léegi yokkul bu ñu appliqué woon vérité des prix mu ngi jar mille francs wala mille deux cents donc tey dama ne la Sénégal bu dee moo gën a yomb essence États-Unis ça veut dire que état bi def na ci ay efforts yu ama am solo donc ñu xam ne président mu ngi ciy def ay jéego dëgg la nag dañuy ñaan ñun ñëpp mu gën a yokk gën a gën a jàpp te tey du sax foofu kese tey ban fonctionnaire la ñu yokkul salaire am yooyu yëpp xam nga la lañ ci jublu mooy tey am na ay prix yoo xam ne inflation bi am na fu muy toll yow état pour nga contenir ko dafay jafe mu ne léegi ñi nga xam ne nii dañoo nekk di fayeku naa fexe ba ku ci nekk ma yokkal la loo xam ne nii ci sa biir ci sa salaire amaana la daan jar fukk bu jaree fukk ak juróom yow di nga am koom-koom boo xam ne di nga ko mën a supporter mooy yokk sa pouvoir d'achat te nag président de amul benn secteur boo xam ne dugalu ci loxoom ba ña nekk secteur bi yëpp yëg ko donc kooku am na bëgg-bëgg ak yéene pour réewam donc li des mooy population yi rek ñu am compréhension ci moom moom aussi ñu gën ko ñaan rek effort bu mu mën a defaat ci coût de la vie mu gën ko yokk incha allah fexe ba vraiment askan bi yëpp li ñu soxla daal mu yomb ci ñoom ndax ñun ñëpp ay sénégalais lañ suñu sañoon réew mi lépp lu askan yu bëgg rek dañ ciy taxaw ba mu yomb. jërëjëf euh, monsieur le maire Issakha Diop. jërëjëf fàttali yow yaay maire Pikine Est. Mhm. sa localité boobu nga gagné ko. Mhm. Euh, ñu lay félicité au passage ci côté boobu noonu. Euh, di tamit di rafetlu. li nga mhm. xam mooy sa taxawaay. ci ndaw ñi surtout ci côté sport bi. loolu yëpp bàyyi nañ ko xel. loolu dañ koy jot dañ koy seetaan célèbre dañ koy dégg ci rajo yooyu hmm. tam ñu lay félicité hmm. di la gën a ñaax rek nga gën a hmm. jege askan bi bu mu tax nga bàyyi bu mu tax nga dellu ginnaaw ndaxte loolu mooy sa yitte ci ñi nga xam ñoom ñooy askan bi ñoo la yëg Mm. ba fal la mm. falaat la mm. jox la li nga xam ni moom nga soxla kon foofu ñu ngi la ciy encouragé bu ñu gisee un jeune buy def loolu ku nekk tam ci benn gox gox bi tax la faa toog loolu nga koy def loolu tamit du ñu du ñàkk ñu félicité la ndaxte ku gis nit ngay def lu baax dañ naan ko waaw góor ba pare ñu gën a làbbali fas bi waaye seen morom yi ñoom i tamit seen gars yi nekk APR nañu gën a góorgóorlu bu baax comme ñoom loolu tamit de waxee lu baax fii da nga wax leneen safaan fële am déet tax ñoom gën a waxee ci yow ñoom ñu dégg ko tax ñu gën a góorgóorlu ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax mm, dëgg la jërëjëf vraiment di la remercier aussi ci kàddu seede yi donc di wax ne ñun loolu rek mooy suñu raison d'être mooy nekk fi au service de la population laxasaayu pour suñu askan mm. sunu sunuy population lu ñu bëgg rek ñu dem jox ci sunu kéemte lay kàttan mm. particulièrement la jeunesse nga xam ne yàlla dogal na aussi ci jeunesse boobu lañ bokk donc ñoom ñëpp rek ñu lancé leen un appel ñu gën a jógaat taxaw rek jàppale seen njiitu réew xam ne dañ ko jox mandat te dañ ko war a gunge ba mandat bi yegg ndax tey président boo dénk wala njiit boo dénk te jàppaloo ko mu réussir perte de temps la parce que échec bu nekk rek maanaam ñun ñëpp lay dal ñun suñu kaw donc président de la république son excellence Macky Sall ku mérite soutien wu population mais aussi ku mérite soutien wu jeunesse sénégalaise la ñu jàppale ko ñu dooleel ko bañ a may buntu kenn koo xam ne dafay ñëw pour manipuler ñu pour ay ambition personnelle am wala ay intérêt personnel am ñu vraiment ñu nekk une jeunesse consciente boo xamante ne xam nañ ne avenir wu Sénégal yokkute wu Sénégal am na yoon bu mu tegu jëm ci émergence jëm ci développement te président de la République moom moo ko fa teg ñu ñëpp ñu àndandoo boole suñu doole gunge ko jàppale ko ñu woo aussi comme ni nga ko waxee responsable yëpp ñi nga xam ne tey président dafa jël ay cër jox leen waruñu gën waru leen gën a gore hmm. dañu war a dem nekkal ko ci weti askan wi di ànd ak askan wi seeni coolo bu ñu nekkee ci inondation yi ñu sol fekk leen fa wu leen yëkkati ay jàppale ci wàllu moto pompe carburant hydrocureur ñëw gu gunge leen jàppale leen jeunesse bi bu ñu soxlaa suñu geesoo ñu gis leen jigéen ñi suñu soxlaa suñu geesoo ñu gis leen parce que tamit loolu lañ mën a dimbalee président mm. mais bu dee dañ la dénk responsabilité nga yamala ko sa bopp yow kese ak sa njaboot mm. wax dëgg yàlla du loolu la ñuy xaar mm. te nag président loolu la soxla mooy am ay collaborateurs am surtout ay ndaw te nag man appel boobu laay lancé mooy tey damaa gëm ne jeunesse sénégalaise bu dee am na président bu mu war a gën a jege ci histoire président Macky la ndax parcours am tey lépp mu naax la ci ëpp ndaw ñi la ko bokkal. donc foofu lay oo ñëpp ne ko président confiance bu amoon ci jeunesse bi na ko gën a yokku tey. xam ne jeunesse bi tey moom mooy yaakaar réew mi mooy avenir réew mi mais aussi mooy force dëgg dëgg dëgg de proposition bi nga xam ne ni ci la war a sukkandiku muy ndaw yi nga xam ne tey xel ak xalaat li jamono laaj tey ñun suñu génération ñoo ko gën a xam jëpp. te gëm naa ne bu ñu boolee suñu doolee ànd ak moom lu ñu bëgg Sénégal dina mun a yomb vraiment di la remercier ci invitation bi di rafetlu yéen tamit seen liggéey vraiment waa Sénégal di ñaan suñu borom mu gunge leen mu taxaw leen vraiment defal leen ay yokkute yu mag a mag merci beaucoup monsieur le maire futur député foog naa <laughs> ah. <laughs> ñu ngay jaajëfal suñu technicien góor gi ci caméra bi mm. Mm. di jaajëfal ci coordination bi Khalil ñoom mm. ñëpp ah di jaajëfal tamit askan bi nga xam ñooñu seetaan rawatina ñu nekk bitim réew jaa ngeen jëf euh, euh, beneen rendez ci suñu beneen gan incha allah